politique bi moom li may woowee rek ñu ñu xam ni Sénégal ñoo ko bokk ah Sénégal moo ko bokk ñoo ko bokk et Sénégal moo moom Sénégal mooñu moom donc nañ fi woote jàmm ci jàmm ci la lépp xaj prospérité ci jàmm la xaj boo jàmm ak xéewal jàmm ak xéewal donc boo bëggee xéewal bu xéewal bi am njariñ ci ñëpp il faut que mu am jàmm parce que dëkk bu amul jàmm xëy na xéewal bi nga fa am sax ñeneen dinañ ñëw jël ko te doo ci mën dara parce que di nga tal leneen donc nañ defante jàmm respectante xam ni Sénégal dañ ko mooñ niñ ko mooñee suñu suñu kilifa diine yi mooñ ko ñu nekk ci jàmm surtout Tiwaawan nga xam ni islam moo fi sax ah fii mooy dëkku El Hadj donc jàmm moo fi sax teraanga donc vraiment ñu def tout ba nga xam ni ñu maintenir solidarité boobu ak jàmm ji ñu maintenir jàmm ji ñu ah, tension bi fi am surtout les jeunes ñu xam ni Tiwaawan ñoo ko moom lépp nañ ko waxtaanee bu ñu ko waxtaanee rek di ñu juboo parce que vraiment ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay xëy na dañu bokkul fu ñu féete mais ñoo bokk ndey bokk baay yarondoo nekkandoo Tiwaawan xamante am na loo xam ne xaju suñu diggante. électoral ñi ngi woo jeunes yëpp ñi ngi woo nit ñëpp parce que dañ ni que quand il faut voter pour compter parce que quand même le vote normalement am na dëkk yoo xam ne le vote est obligatoire parce que dëkk boo fa nekkee ñuy tànn njiitu réew vraiment da nga war a joxe sa participation parce que sa. sa sa tànn sa tànn si extrêmement important yow mi nga xam ne yaay tànn parce que sinon dañ la tegal fii njiitu réew boo xam ne xëy na yow tànnoo ko donc tànn bi dafa important mooy que nga ñëpp ne ñu woote ñëpp surtout des jeunes ñu dem euh, ñu dem dem ci liste électorale yi ñu bindu pour mën a voter parce que ba léegi parce que ba léegi sur 17 millions de personnes fichier bi à peu près 6 millions de personnes la donc dañu wax ni que bu ñu xoolee population active bi presque c'est la moitié moitié moitié moitié ñu waroon a bindu ñooy bindu donc y a une euh, marge importante boo xam ne binduwuñu ñu ngi ñaan yëpp ñun daal fii dinañu organiser wu ba nga xam ni tous les jeunes surtout ñi nga xam ne ñu ngi ànd ñun di politique ñu fexe tout pour bindi leen ci liste yi parce que kuy dem kuy dem combat kuy dem guerre da nga yóbbaale sa arme arme bi nag mooy carte bi carte bi c'est-à-dire je compte j'aime damay defar sama carte pour mën a compter ci vraiment ci balance bi.